jaaraamaandal Seynabu Njaay i soxna jaara yor di jaay yaa ko mosal waa njare njaay saw nga ñi rot na yaa texe jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina jarool ak Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina est-ce que Cheikh Abdoul Aziz Fall Mamadou Moussa Fall borom xayra yal na saa dool borom dolli mu yokki leeram bàyyi fi njabootam ñu liggéeyal maam ju tedd ja waaw mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen baalu àq di leen dalalaat fii seen émission ëttu maam Seynabou Ndiaye seen chaîne Jazboul Mouride TV ëttu maam Seynabou Ndiaye nag su ngeen ko déggee muy dox ci meloy soxna ak ay jikkoy soxna ak soxna nu mu war a doxee ci yoon bi ak nu mu war a nekkee ci jamono tey nag ñu ñëwoon fii fajaa dalal soxna Xadi Ndaw di soxna soo xamante ni soxna su bëri passif soxna suy dox ci yoon wi ñu dalaloon amoon béggoon lool di ko dalal tey ci ëttu maam Seynabou Ndiaye soxna xadi nuyu nañ la. waaw maa ngi leen di fay bismillaahi rahmaani rahiim ansibillaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu santee yàlla sant suñuy waajur ñoo ngi yeesalaat suñu njébbal di sant Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul maam Cheikh Ibrahima Fall ñaanal sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér di leen sant di leen nuyu yéen tamit waa Jazbou Mouride waaw soxna Khady bëgg nañ bu baax soxna Khady ëttub maam Seynabou Ndiaye nag daa baaxoo di waxtaane ay jikkoy soxna di waxtaane ay melooy soxna maam Seynabou Ndiaye nekkoon soxna su tedd ba tax na tey jii émission bi tey moo taxoon mu mu jóg ngir ñu nekk ci weeru safar di ñu war a jëm ci màggal yàlla nañ ko fekkee jàmm ak salaam waaw lépp luñ ci bëgg rek yàlla nañ ko Cheikhul Xadimal Moustapha defee ak bépp mboolum jullit euh, ñuy waxtaane nag tey euh, soxna soxna yi ak màggal gi ngir dañoo gis màggal gi buy ñëw soxna yi nu nuy demee màggal euh, nga gis maanaam borom màggal gi wootewul loolu am na leneen lu mu woote muy santale leen ma sama borom loolu la woote ngir ñu koy defee tuubaa ngir gis soxna yi tey jii fi mu toll nii bëri nañu am nañu bëri ñuy dox ci yoon bi waaye nan nga gisee soxna yi fi mu toll nii nuy màggalee. waaw soxna si soxna yi da léegi ni ñuy màggalee ak li ñu taamu ci màggal am na nag ñi nga xam ne moom li sëñ bi wax rek ci la ñu nekk. Mhm. mooy santale ji ko yàlla. Mhm. maanaam dañ koy wax toujours suñu waxtaan ci suñu biir fii. Mhm. na booy màggali ci wàccaay màggal bu bu tàmbalee rek ku la jis dina war a xam ne yow yaa ngi wàcc màggale. waaye it boo yeggee Touba ku la gis dina xam ne kii dafa màggal si ndax ñi màggale ak ñi raas dem du benn maanaam euh, soxna soxna sëpp bépp soxna boo xam ne am murit nga ndax booy màggale def li ñuy tere lépp maanaam comme jamono yi ñu toll sëñ bi tere na ko yokk sa karaw tere na ko mel weneen melokaan wu bokkul ak ni la suñ borom bindee mm-hmm. ah nga ne naa ko def te nëbbatu kon yow sant la jiwoo sëñ bi mm-hmm. nga dem di hmm te yaakaar na nak ton sëñ touba mom togn gu reuy la mm-hmm. war nga mel dal li nga xamné ne la suñu mag ñu bax ñi roy ji hmm ku mel ni maam Seynabou Ndiaye mm-hmm. ku melni Soxna Jaara ah ñooñu daal xamna naa ne buñ leen doon buñ leen royé dal jamm rek lañuy am hmm wa ndaysan soxna Xadi ndax fogo ni manam ci euh, ñaka pas ñaka pas-pas bi la ak ñaka tarbiyu bi ak ñàkk yóbbu soxna yi fi nga xam ni fa la war a nekk. ci loo loolu laay wax toujours dama naan ñun murit dañoo waroon di exiger ndax nag ku am sa waa sa sa njaboot boo ko tuddee maam jaara jaarale ko ci yoonu maam jaara. Mhm. soo ko tuddee maam Seynabou nga jaare ko ci yoonu maam Seynabou. waaw boo ko tuddee neneen nit te nga bokk ci kii bi war nga koo jaarale ci tànki ñooñu. Mhm. léeg-léeg nga di ko toog waxtaanal ko ci. melokaani trondom, mm-hmm. leg leg nga tok di waxtaan ak mom ci jëf ji fi turandoom jëf bay ko fi dëgg la léeg-léeg nga waxtaan ak mom ci melokaan ñamu defar mm-hmm. ak ñamu dimbalé mm-hmm. parce que yaangi dégg ñu naan maam jaara bu ayawaan ndongo yi ñepp dañuy bég parce que koku daawul toggu lu di daawul yak lu doyul bu ñepp dañuy yakamti mu ay kon koku jar roy jana kuñ ko tuddee war ngaa man koo roy ci jikko yooyu waaye bu fekkee ne yow nu la neex nga tuddee sa doom moom it bu ñëwee rek mel ni ko neex loolu tam critères yooyu toujours dama koy wax ci ñun ci xam nga nag nit ki li nga moom rek nga mën a wax mais mën a wax ci wàllu keneen man daal su ma sañoon képp ku ñu tuddee maam jaara daal dañ nga teg ci yoon yi maam jaara ya soit que ñu yóbbu la ci daara yi maam jaare ya ñu dàggi la soit que ngay am koo xamante ne ni daal dina la yar daal ci yoonu murit ba nga yow doo rëccu boo màggee doo rëccu luñ la doon tuddee maam jaara mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw soxna Xadi ndeysaan loolu am na solo loolu eh, taw féexe na ngir eh, soxna kat dafa war a roy eh, aw ci ay ndigal waaye ngir roy kilifa yu baax yooyu nga xamante ni ñoo fi nekk mm. kilifa yu baax yooyu nga xamante ni ñoo fi nekkoon ku ci mel ni maam soxna jaaratulaa dëkkaale gi yàlla gi ak maam seeni bu njaay mm. yan jikko nga nga nga nga nga nga jàng ci ñoom ah, ñii dañuy sant yàlla bi ñuy juddoo doon ay murit mhm. fekk suñuy waajur doon ko ñu doon ko fas yéene koo doon doonal ko suñuy njaboot ba keroog yàlla dañu fi jële mhm. mooy seen seen seen jikko yi daal daawuñu def ni jamono ji li ñu baaxoo boo solo wat say cër muy feeñ booy wax di wax ba ca kaw ku la war a dégg dégg la ku la war a dégg dégg la dëgg la soo toggee di ko yemale ci sa njaboot ñoom bu ñu toggaan dañuy togg pour ñëpp ñun nag jamono jii moom ah doy na waar waaye nag ñun ñi nga xam ne yàlla def nañu ay taalibe daal mhm. nan def rek yëfi taalibe mhm. di togg lu doy mhm. di joxe di di di yaatal tey di yaatu tey yaatal loolu daal loolu la ñu xamee am murit te ñun daal ci loolu la ñu nekk ndeysaan soxna Xadi taw fii xam ne ngir jikkoy soxna moom ak ni mu war a doxee ci yoon bi eh, eh, soxna soxna rek dafa metti ngir lan nga leen di wax maanaam yoon bi daa am na mu baaxoo waaw ma leen wax ne yoonu murit moom ci jub ak yar ak teggin ak yaatu ak yaatale loolu daal moom laa xam ne mooy jigéen joo xamante ne ni yaa ngi bàkkoo yoon wi rek noonu nga war a def foo toll nag bu 18 safar jotee foo toll na nga laxasaayu takk sa ndig ba mu dëgër am ci lu sell nga jéem koo jëmale ci bés bi loo am nga Sëriñ Tuubaa yàlla ndax daf ne ñëw leen santale ma yàlla kon kooku war nga takku laxasaay demee Pastef goo xam ne ku la gis dina xam ne yow Pastef rek moo la indi fii. kat mooy doon mag yi euh, mag yi ëllëg ñoom ci lañuy boo nekkee ndaw ci lañ la mën a taataan ci lu baax ba nga xam ne ëllëg say waajur duñu mën a sonn ngir euh, euh, xale yi nga xamante ni yéen yéen a leen di yor ngir suñu moroom yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon bi xamuñu fu ñu war a mën a aw ngir ba xam yéen leen di taataan ci yoon wi nga xamante jàng xaside yi jàng alxuraan nga xam ne dañuy dox ci yoon ba nga xam ne duñu juum mm. duñu jaawale duñu aw ci mbedd ñu leen di joxoñ wala duñu def dara loo xamante ne dañ leen koy waxee ndax yéen leen di taataan ci loolu waaw soxna si nag loolu moom bëgg naa sax yokk ci ñu yokk ci waxtaan parce que dama naan nit ku nekk war ngaa xam fi nga bokk soo juddoo ci kër doonu am murit yow xale de ba âge nga ko war a nàmpatal ci li mu doon ba mu xam li mu doon man suma doxé ba gis xalé bu tuuti bu sol caaya dama koy bëgg suma gisé xalé bu sol colu mourid dama koy bëgg dama koy nama koy waxtaan fi sax na leen suma sañon sama waa duñu sol lu dul colu mourid man sama dom suma koy ñawal duma ko ñawal mukk lu dul col mourid murit daan dem masaalik eh, masalikal jinaan damay japp ci loxom and ak mom mm-hmm. ndax nit ki boko ko rek ci limu babi doon fofu lañu tuba bi yi fu la mm-hmm. tuba bi buñu seen dom juddoo rek dañ koy jangal limu bëgg ñu doon ko lool lañ koy jangal Mm-hmm. waaye nag ñàkku ci am na ci kër yoo xam ne nii seeni doom xamuñu lu dul ak taalibe ak xasida ak yoon wi mm-hmm. loolu rek lañu ñu xam mm-hmm. waaye bu ñu bëggee tamit boole xale bi mu bëgg a xam lee xam lii bu yoon bee bu ko yoon bee dominé rek maa day taale da cay dem waaye daal bu ma sañoon soxna su ne soo yoree sa njaboot ci kër gi di nga leen jàngal yoon wi bu bu dee ñu góor ñeek ñu jigéen ñi am nañ ku leen di jàngal si xasida ñuy jàng bu ñu ko amul ñuy dem ca daayira ba ndax daayira moom léegi tubaab fakkaat la macha allah. fajaa gi macha allah am na cité Touba cité fajaa gi am nañ daayira kon boo tey jii daayira bëri nañ fi mu ne ku bëgg sa doom jàngi ji xasida dina ko jàng ku sa ku bëgg a sa njaboot ci yoon wi di ko ci xirtal waaye nag na fekk yow mii di waajuram nga njëkk paste pasteefu mhm. soo foo daal yaakaar naa koo diriger ci kër gi rek dina pasteefu mhm. waaw waaw ngir yarkat dafa am solo ci ndaw ñi bu baax ngir Ibrahima Fall Lam Babul Mouridina ak maam Saliou Fall mu yar leen nag ci ak topp ngir maam dañuy dégg ñuy wax naan maam Saliou Fall moo njëkk a yëkku tedd ki bi mu ko koy wax dañuy demal wuyu ko soo ko wuyu ma wuyu ko te sunu askan danoo baaxoo toppe kon loolu ñooñu dañ leen a yar ngir jamono ji ñu toll am na ci eh, soxna yi nga xamante ni dañuy dox ci yoon wi te duñu wëyee ndigal ndigal nag dafa am solo ndax ci lan lay yar booy wëy ci say ndigalu waajur rek daanaka defe naa ne ndigalu keneen du la jaax ndigal sax dañ naan toujours olof dafay baaxoo ne ko amul kilifa jinne di sa kilifa te ku nangu ñu digal la rek am nga am nga kilifa mm-hmm. ndigal ñun murit moom lañu xam mm-hmm. ndigal moom lañu ñu xam bañ nañ ko ba dañuy taxaw dañuy naan ndigal jëfe mm-hmm. ñun loolu mooy suñu slogan ñun murit yi murit ndigal ndigal jëfee ñun loolu mooy suñu slogan am na solo loolu waaw yar moom dafa am solo ndax euh, yoon wi dafa baaxoo li nga xamante ni dañ foog ni lépp maanaam folklore la te nekkul foofu maam Cheikh Ibrahima Fall furul Sëñ te Sëñ Tuubaa folu fowul foluwul dafa woote yoon gi ngir ñu santale ko boroomam waaye maam Cheikh Ibrahima Fall dafa bëggul képp ku tedd ki maam bu Ndiaye nag di soxna daan bi tarbiyu mm-hmm. ci njaareem waaw ngir loolu yombul woon ci jamono jooju nga nga xam ne ca la tolloon lépp da ko jëloon delloo ko maam soxna jaara so ngir loolu noonu nga xam ne mu moom la bëggoon euh, def ci maam soxna jaara buso topp ko ak di ko tar bi moom la mottali ci cheikhul xadimal mustafa ngir dañ naan keroog sax bi mu ñëwee ci euh, ci sëñ Tuubaa amoon na ay baat yu mu ko wax ànd ak doomam jooju di soxna Asu Jóob bam naan ko bu keroog yow ma xiyam ñaar képp a fay nekk te kenn ki yaay ndeyam waaye bu ñu nee ana nday kii rambu jaam na nanga xam ne yow la ñuy woo maanaam loolu liggéey dëgg moo koy maye te maam seeni bu njaay dégg na lu nekk ci kër boroom këram ngir dafa tarbiyu ay waajuram ba am seen ngërëm tarbiyu borom këram ba am ngërëmam waaye jóge fa nag tarbiyu ki nga xamante ni mooy ko tedd ki Cheikhul Khadim Moustapha ñu jigéen ñi soxna yi war nañoo gën a yokk seen passé waaw su ma sañoon nag loolu la ma koy wax chaque jour saa yoonee saraax ci këru murit rek soo fa fekkee soxna sax di nga xam ne kër ga dina murite waaw dina mérite ci comportement bi dina mérite ci ci lépp rek bu dee dañ laa war a taajal ñam bu taajee ñam di nga xam ne lii mérite na mm-hmm. bu la bu lay accueillir na la accueillir accueillir bu mérite mm-hmm. bu la jox ndox na jox ndox mérite lépp bu ngeen séqee waxtaan sax waxtaan wa dina yar am yar ak teggin mm-hmm. ba mu xam ne man mi kër gi ma dugg këru murit la ngay waxee waxu ta ngay waxee ay kàdduy taalibe boo ko weccoon teg ni des fois nit ñëw sax bëgg indi beneen façon mais ci accueil bi nga koy accueil euh, accueillir rek dina xam ne fii kat ak taalibe doo nga fi nekk. Mhm. su ko defee moom ci boppam day moderniser langam. Mhm. daal di xam ne fii kat su ma fi waxul waxu taalibe wala ma jëfe fi jëf taalibe li ma bëgg dara du ci sotti. Mhm. kon ñun soxna yi ñun ñooy société bi. ñun ñoo yor kër yi. ñun ñooy defar njaboot gi maanaam lu ma lépp lu ma la doon wax ci njaboot gi ci ñun ñii la ñun ñun yaay yi parce que yi de peu de de temps lañu ñuy ak njabot gi. ñun ñoy toog ak mhm. ñom sa su ne. kon bok ñun ño wara défar man dal weddi trop ju nan ki bayam nek fi wala nangam sangam eh, def naa ci li son jigen dal mom moy defar société. Mhm. jigen mom moy japp wa kërëm sol ci ñom ak talibé go xamanteni ni ku leen gis ne ay élément wu khadim rasul pire ngi ni waaw modik talibé waaw modik talibé taalibe te yar gi malay wax légui sax. sa dom buñ ko xolé fexel ba buñ ko wax cam ndax euh, liggey gu rëy moy maye dom ju bax te manam lolu mam Seenub ndiar ko liggey mam soxna jaar Tuuraa liggey ko ci euh, mam mor Anta Sali ngir lolu passif la soxna yi dañu wara gëna mëna gor mën a bu baax ba ndax yeena ngi def ay événement yo xamanteni yeena yéen ngi koy taxawal di ñaanal soxna yi seen magali buñ ñëwé di leen ñaanal di wacce ay kamil jang ay khassida di len ñaanal dal di di di def ay waxtaan ci seen biir yeen soxna yi. xamna ren affaireu pandémie bi moo tax ba daje yi wul waxtaan yu wul mais dañ daje chaque fin de mois premier samedi dañ daan daje def daaira waxtaan fa def lepp mais comme pandémie bi depuis pandémie bi ba tey demuñu fenn waye ñun moom ñong koy dundal fi ci kër gi di ko fi deugal manam premier safar gi ba tay bés bu set ñoo ngi wàcc di jëkkati li ñu am di ko wàcc ci suuf ngir santale Serigne Touba Serigne Touba su tàkkusaanee soxna gaas na segg kafe gi ñu jël lépp lu mën a ànd ak gi nag lu ñu am rek te mën a ànd ak café gi rek ñu daal di koy wàcce wàcc ci suuf jox dëkkandoo yi ku romb ci mbedd mi ñu jox la ngir santale Serigne Touba Serigne Touba di ñaax rek soxna yi màggali ji da leen wan ne moom kenn mënu koo yàq mm-hmm. nit dafay yàqoo waaye mënu koo yàq kuy dem na nga démé sa passif ak sa yar ak sa teggin soy depp loolu yépp topat la waaye leneen lo fa yobb yow loolu dana la top yow ba faaw te Touba mom na mu meloon rek nonu lay mel mbaa mu yokk ci ngeenel waaye yow mom kèn mënut a yàq Touba moy dal gor go xamante ni gor gu jàmbaare lay doon nango liggéey mané yor njabotam man yar tek ci yoon te du ci bolé fo du ci ci xam man dal foog na né kok moy bay Faal di leen ñaanal yàlla site bi yàlla na dem ba nekk télévision yàlla na ci yàlla ak Serigne Touba Mbacke teg loxoom barke Serigne Touba ak Cheikh Rafal yàlla na yàlla defal ay xéwal yu bëree bëri yàlla may ñu nu màggali ci jàmm dellu ci jàmm yàlla may ñu paas ak paas ak lu nu yóbbu Touba ah <laughs> di ñaanal nag mbokk yëpp di sant waa kër gi fii sama soxna si Ndey Abi di sant mère Gaz mi sama mag ju baax jeeg tante Mbaye di sant waa Cité Fadia gépp rek. waa di santit waa daayira bi yëpp fii Cité Fadia Touba Cité fajaa gi nga xam ne ne moom dara ñorul leen lu dul sëñ Bàmba dara ñorul leen lu dul Touba ak sëriñ Touba loolu rek a leen ñor di leen ñaanal waa bu mu Mouride ca kaw ca kanam yàlla na nekk daal ay télévision waxuma sax ab télévision ay télévision ci barke Cheikh Rafa. képp koo xamante ni da ngay jàmbaar rek di nga toog ci ëtt bi waxtaan. ngir maam Seynabou Ndiaye dana la teg loxo ba nga toog fii waxtaan. te loolu yëpp ngërëmam képp lañ ci jublu. waaye di ñaan rek sa borom xiir ñu ci ay jëfinam yu baax. nga xam ne moom képp la fi liggéey ñu di ko topp. ëttu maam Seynabou Ndiaye nag lii la leen indiloon ci seen chaîne Jazboul Mouride di di gërëm mbokku téléspectateurs yi baax di leen ñaanal jàmm ak salaam. di ñi ko doon teewlu rek euh, di di nuyu ak sant ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkal liggéey bi nga xam ni fii ci Jazboul Mouride ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ngir euh, liggéey bi metti na waaye maanaam eh, jàmbaar amu fi kun dimbali rek am. Mm. kon loolu daal tawféex la di wax jërëjëfe sëriñ Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina est-ce que Cheikh Abdoul Aziz Fall maam Modou Moussa Fall borom xayra di leen ñaanal tawféex comme ni ko soxna Xadi waxee ñu màggal ci jàmm ñibbisee ci jàmm barki Cheikhul Xadim Moustapha yaakaari jàmm. jaaraama ndey Seynabou Ndiaye di jaay yaa ko mosal waa njare njaay saw ngañ rot na yaa texe